bi le feebar baa ngay rey ba léegi ne la dee ba sobi ne corona ja day ah, lu tolloog juróom ci ay doomu aadama day la rey ci ñaari fan inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ah maa la ko wax dañuy dee dee seenu at waaw diggante fanweer ak juróom-ñaari at la dee jàpp kon juróom-ñaar fukk ak juróom ci ay at ñeenti doomu aadama laa lay wax ni la yi dee ci Dakar la ñu dëkk juróomeel ba dee ca Touba la dëkk yéene kaa ngi ne juróom-ñeent ci ay doomu aadama kon ñoo dee ci benn semaine benn ci ay doomu aadama wara mu ñoo dee ci ñaari fan ne te gis nga service da ma technicien de surface la ak ñaari malade waaw wala nañ leen dee libération yi kaay ne covid 19 de feebar bi kay ah, fi mu nekk nii nag ma ngay feebar baa ngi def lu mën naa la wax ndax lu tolloo fukk ci ay doomu aadama dee ñoo dee ci benn semaine la ilaha juróom ca ñoom samedi ak dimanche lañ dee téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñett de ñu bees ñu am feebar ba te ñaari fan waaw junni ak ñeent fukk wax ni lé ay malade bees ñu ngi leen di faj téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñett de junni ak ñeent fukk de ci ñu feebar ñu ngi leen di faj benn waa joo xam ne ca Dakar la jógee moo wàlla waa Fatick faan ak dante ga wàlla nañ leen sur quotidien alerte rouge luy jot nag jot na ginnaaw de juróom-ñaar ci ay kaayu garaaw Sénégal nag fi mu nekk ni lé passé na kon junni ci ay patient yoo xam ne kon ñu ngi leen di faj waaw cas communautaire yi moom nañuy màggee di jëm kaw mardi tali personnel gàll nañ leen enquête yéene kaay ne en dee gi dee ni ñuy jugee kaw ni doy na waar doy na waar docteur Aline Badara Diop waaw nee te xam nga lan moo ci ragal loo mooy xale yi nga xam ne kon ñu ngi ciy dee looloo tiitlu nag direct news de en tout cas kër kilifa diine de ñooy violé état d'urgence fi laa la wax maar di taali waaw waaw dama ne la ñooy nit ñi déconfinement forcé le foyer religieux di def nag laa la wax xam nga am na kër kilifa diine ñu Sud Quotidien li wóor ba wóor en la xew ca Médina Gounass ke atelew na Niassène ca Kaolack waaw day féewale nit ñi de boolewul nit ñi de Cheikh Ahmed Tidiane Khalifa Niass mooy xalif généralu leew na ci lay si ko yéene kaay waaw nee na fam nekkoon la nekk ba léegi ni la dee ndaxte Niassène bi nee kenn mënuñoo tere ci julli ci jumaa laa la wax fi mu nekk ni la dee jënd naa samay càngaay ngir dem ca kaso ba déet ah waay ba ma waaw nee maa yëpp ñu def nag lu ni mel julli ji jumaa par force <laughs> direct news de waaye xoolal ma commerçant li ñu mënul nangu de mooy seeni magasin ñu tëj ko ba nuppi déew Discover ak Orca waaw ñu ngi ubbi seeni magasin lii luy ndeyam en tout cas président Macky Sall de suba lay wax tribune yéene kaay ne njàng meeg njàngale mi tamit de le deux juin danañu ubbi waat kon classe ya waaye ñi nga xam ne nag maanaam ñoom ñooy acteurs yi ak sénégalais yi dogal boobee d'accord uñu ca de déedéet xoolal ma laa la wax goo xam ne lañ ci gis kon maar détaali yow gouvernement boo xam ne kon mënoo jëndal yenn ci ay école sacré crédence yi ñuy bindee waaw yow nan nga mënoo ubbee kon école yi lée ba pare te daara yi te jumaa yi yi église yi waa FNR waaw nee nañu dogal bi lée xaru la de xaru la de jël xale yóbbu leen ci école ba xarul la musiba mbaa boo kumba kon mën naa dikk sauver ay bakkan daal moo gën sauver année blanche foppe lii sax daa yeluwul maanaa quoi yow yaa jaaxal ñëpp termine yéene kaay ne en tout cas mairie bu Hann-Bel-Air de Babacar Mbengue waaw lu tolloon cent soixante quinze millions la dimbalee kon askanam woowee Grand Place de Daouda Niang di mairie Rufisque de moom tamit dimbali na hôpital Youssou Mbargane jafe-jafe yëpp daanaka faj nañ ko de à quatre-vingt-dix pour cent Pape Jogoy Faye tamit eh, ci direct news waaw daal dinay wut lu tolloo juróomi junni ci ay masque dimbalee ko waa ngee waaye ngee ko ga yéene kaay ci ay kër yoo xam ne de ménage ndimbala nguur gi de yegg na ca ñoom ma la commune yéen googee waaw bokk na ci commune yi nga xam ne yu njëkk yu pare seen wàllum séddale très bien dama ne la maire ba góor siis de yemu ca ndaxte famille yi nga xam ne kon dañu ne nguur gi du leen dimbali bokk ci critères yi lée góor siis da leen a dimbali très bien fra France dégage ci libération yéen kaay waaw nee na génnee leen Abdou Karim Gueye xurum xaax te ubbi lañ ci nekkee laa ko di yéene état d'urgence fee yori nu covid ga ba ca wàllum diaspora waaw ngoone ndooy dee am na loo xam ne kon d'accordu ca dee dëgg li sénégalais d'accordul kay mooy pér ba dee ubil lay ko yéene kay Toussaint Manga ne dama ne boole woon nañ ca pér jom laa la wax bindoon nañ ko mu leer Toussaint Manga ca l'observateur ne téeméer ak juróom ñaari million laa wax la ñu woon ngir wàllum pér neexal gaa yi bokk ci ba ay waaj la ay waaj feebar bi rey nawet beeg liggéeyu tool yeeg béykat bi lu mu doon jàmbaar jàmbaar bu ko neexee tiit nag bu ko neexee tiit de tribune yéene kaay ne ginnaaw sayer sek de waaw hélas ña armateur waaw daal dinay seetal nag de ministre Alioune Ndoye nee na Alioune Ndoye signéwul benn licence de pêche nag laa la wax hélas ñaa ne maa la wax lée ñoom sayer sek nag dañoo jàppee chinois yi ne ay étranger te laata chinois yi doon fi ñëw daan nañu toog ñaari semaine yoo xam ne benn conteneur du fi wàcc wax grand place de aide à la presse de xaalis ba waa CNEPS nee nañu xaalis boobee dañu koo détourné ar d'Italie la ilaha ci enquête yéene kaay ne dama un milliard quatre cent aide à la presse xam nga ñaata la ñu séddale deux cent vingt cinq millions maanaam seize sur cent ana xaalis ba patron de presse ne dañu ne waay waay ministre bi de la communication na wax ku nekk ñaata nga am le quotidien yéene kaay ne contrat Sénélec ak Akilee un lëfa lëfa cinq dama ne la séddoo bukki la bii bukki